Nine dëkk bi borom bërëb bi Cheikh Abdullahi suñu maam di ñaan yàlla mu yàggal ko fi te may ko wér ba mu àggale liggéey ko di feeñal itam sama lot ci xëy li ñuy waaj a defloo ndax jataay bu ak bu nga xam-xam la Mor mi ñëpp xam muy xam xamle diine yàlla ji ak sëñ Abo mii nekk sama wet xëy na loolu buñ ko buñ ma koy defloo waxoon naa sëñ Mamour am di ne ko damaa yaakaar ne rek lañ ci jublu ak dundalaat gi ndax waa kër sëñ Mamour Diarra ñi def waxtaan wala jataayu xam-xam di ko def ko dëkk Darou Mouhty loolu day dundalaat yu bare bare bare yaakaar naa loolu nag lañ ci gën a jublu xëy na nag dañuy tànn ñu tànn waajoo xam ni yàlla leen ca nattoo loola ñuy jégg bu baax kon borom xam yi fi ne ngir njëkkanteeg waxtu wi rek sëñ Mamour junj na ko mooy a cheikhul xadim wa manhajuhu ak tarbawi dinañ waxtaane ñaar yëpp bu soob yàlla muy Cheikh Ahmadou ci lu gàtt waxtaane tuuti ci ak dundam ci anam goo xam ne luñ dugg ci historique bi wala histoire bi wala tarikh bi dañ koy wax fu rek aw melom xëy na loolu moo a jariñ ci anam gi ñuy waxe ci wàllu tarbiya rox yi man xaju tarbawi yi nag foofu la jafe-jafe bi nekk ni ko suñ Mamour junjee mooy ba léegi si mënee su ca mënee su guta dogu ci ne nangam mooy mën xaju ba ma ci tarbawi yan kenn ku ne dana ci wax ak wàll gam ko jàppe ak ni gisee man xaj bi waaye amagul fuñ ci dëppoo ne nanga muy mën xaju ba tax na mënoo jóg ne mën xaju Cheikh Al Khadim ak tarbawi mooy lii may wax kese waaye teewul nag def nañ ak farlu ci sunu kem kàttan ci gëstu ci delluwaay yu mag yépp jéem a lañ mën xaj boobu muy anam ak yoon wi nga xam ne moom la Cheikh Al Khadim doon tërbiyaa mag ñi àndoon ak moom ci delluwaay yi nga xam yépp muy ba ci jiitu di cheikh Mouhamadul Basir ci téere bi de tuddee Minanul Baaqil Qadim ak cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana téere bi mu tuddee Irwaa'un Nadim min adbi xubbil Xadim loolu itam lañ ci jële jàppe ko muy mën xëju sëñ bi muy anam gi sëñ bi téere bi yi ko yàlla boole doon danañ ko wax léegi bu soobee yàlla te am na yaakaar ci ne dana xaw a matale ni ko sëñ bi doon defee xam ngeen ne sëriñ bu ne dafa am yoon wu mu jaar ak ña yàlla boole ci ay tari bi tarixa yëpp it foo dem am na tërbiya nuñ koy defee ak anam nuñ koy defee sëñ Tuubaa nag amoon na mën a ci boo xam ni noonu la doon tërbiya incha allah danañ ci dikk ci niñ ko jàppee ak li ñu déggee ci delluwaay yooyu li ci jëkk kon bala ma dugg ci waxtaan rek. mooy ni jëkk wax ne si Ahmad Bamba radiyallahu anhu wa ardaahu ci nun du ku ñuy laajte di du ku ñuy fàttali kenn ndax ñun ñëpp mooy suñu dund mooy ruuxu dund gi ci nun murid yi waxtu na koy tudd di dellu ci moom balaa wax sax xorom danga ko ca danga lu ñuy def boole ko def kon du ko ñuy fàtte du ko jug ci xel waaye waxtaan yu demee nii nga xam ne fu ne dafay dem ci adduna bi te am na ñoo xam ne ba léegi xamaguñ turu si Ahmadu Bamba woowu jar na ñuy fàttalikuwaat jëmm jooji di ko melalaat ci melal woo xam ne xëy na day nuru suufe waaye am na ñoo xam ne ñoom àggaguñ ci niveau boobu Sëriñ Tuuba si Ahmadu Bamba radiyallahu anhu mi ngi ganee fi aduna ci dëkk bi di Mbàkke bool ci atum junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci hijriya mi gaday Yonent bi alayhi salaatu wa salaam 1853 doon jëm joo xam ne nag mbooleem ku ko mas a gis yéem na la xam Sidi Ahmed Bundisu ab taalibeem la bu ànd ak moom lu mat ñaar fukki at bind na téere bu tudd al fil xaadisaat wax na ca tuuti ci melow Sëñ Tuubaa waaye dafa wax ne dafa mel ne suñu borom boo leen bu taar da ko dajale ci kanamu Sëñ bi nga ne boo koy gis dangay ngay bég te dootoo ko mën a téemuñ loolu ci ngay dégg li Cheikh Mouhamadul Amin Diop Cheikh Ibrahima Diop Machaari lam ko wax ne ko wa wajhuka badrun إذا ما اجتليته تبرد أكبادي التي تتلهب حديثك لي كأس من الخمر مطرب وذكرك شهد في لساني مطيب ووجهك بدر إذا ما ابتليته تبرد أكبادي التي تتلهب مويو yow sa waxtaan dafa mel ne kaasub sàngare ci man su ma koy déglu du waxtaan suñ tubaab lépp noonu la daa àggee ci xol moo xam ñu koy waxtaane wala moom muy wax wa ka shahdun fi lisaani mu mutayyibu mooy tudd la moo gën a ne xëbb lem ci sama làmmiñ waaye sa xar kanam bii moom fu ma ko ne jàkk mboolem sama njàqare xol ak sama mettiti xol mboolem li nekkoon sama xol ci ay tàkk-tàkki njàqare di daal giif di daal fay ngir mbégte moo ci daal di dugg ci xol ba moo tax Sidi Ahmadu wax ne moom yàlla dafa sotti mbooleem lu di taar ci xar kanamam boobee léppam di lu jekk léppam taaru léppam rafet mu amoon jikko yu rafet amoon itam jëmm ju tuuti njoolu ba ëpp waaye gàttul itam dañuy wax digg bi nit moom la doon nekkoon jëmm ju sell ju set yoo xam ne fu mu la jegee xet bu neex moo daa bonnee ci moom wax nañ ne dawul julli julli farata te tuuroowul biteelu sikki wala biteelu misk bu ma saa di toog penku lay jubbu ak jataay bit jataay bu sell laa doon kenn du fa wax ay darax kenn du fa jëw kenn du fa tudd nit kenn du fa wax lenn lu yàlla gërëmul moom ci boppam daana wax ni man sama jataay ku ci toog seytaane boo ci ñëw boog ci sama jataay seytaane si nga àndal muy xarin bi la yàlla booleel da lay xaar ca biti du dugg ci sama jataay boo ñëwee fi man bay dem li nga fi jële boo ko sàmmee du la toppaat mu daa sol yére yoo xam ni yu ëpp lay doon jëmm jëm rawatina loxo mbubb yi da ko da ëpp xëy na loolu damay wax ne ci la loxo mbubb yi mënul yu guddi yi ak yu rëy yi xëy na foofu la ñëw mu daan koo xam ni léppam doole da ko daa defe ak kàttan wax ne ni bu ma saa wax allahu akbar ci jàkka ji ñëpp kuy dégg mës na def dara ci ak tàññal wala ak dalam ak wegoom mu nekkoon ab gawar bu mën a war fas ba naari gànnaar yi bokk na ci li gënoon a yéem mooy lim rafete woon nu ware fas ak lu mu ko dawre musula wax du yàlla gërëm waxam jëpp digle lu baax la daa doon ak tere lu bon mu nekkoon ku gaaw a tontu it xam ni tontu li dafa mel ni mi ngi ni ko wolof yi waxee loo nekkoon ku farlu ci jaamu yàlla yëpp mosul la tiim ci dundam ben yoon la ko mas a def te boo amee ndox fay na ko sëñ Basiru nee na dafa daa def buy dem di tukki satalaam dafa am ku ko dénk benn bis nag kam dénkoon satala gi yàlla dogal mu réer ak moom ci yoon da ko jiitu sëñ Tuubaa ab doxam dafa gaaw ba waxtu wa jotee mu wër wër wër dëkk wër wër wër gisul waaja nee na keroog bo waxtu woon naree jeex xëy na xëy na ca la tiimu waaye keroog la mujj jox nit mu di ko ngàbbal ak satalaam waxtu ne sat la gii def ndox mi muy jàpp moom moo ko yor ndox dara mosu koo tee tiim itam sëñ bi su daana wax ne wax na ci minal baa xadim ne mas nañu fekk di gu ko dal lu mel ne taab gu ko dal ci loxoom di génne deret ak dëtt ba der bi xoll ko bu gisatul dara lu bokk ci der bi mu yaram yàpp ko cur di feeñ ci moom nga xam ne loolu lislaam may na la yow nga bañ ko nga bañ cee def ndox ndax ndox mën na koo gën a yeex a wér wéral wala mu yokk jàngoro bi waaye suñ tubaab lu mel noonu daw ci dawu ko tee jàpp da ko daa bomb di bomb góom bi nee na ba deret ji di sotti ko ba yow mi ko fekkee da nga jàpp ne loxo bi daa saxul ci ci jëmm jooju teewul da ci daa di wax loxo bi naan ko hal yadu sawaun damiti aw bariti fa ana abdun ma'mur wa inni la maadin fii ma umirtu bihi bu la neexee nga deretal bu la neexee nga wér bu la neex defal waaye man jaam laa bu yàlla digal faw ma jàpp julli gune it da ko daa jàppal moom dara wax ne man duma ci ay seen danaa wax ne nga xam ne lan mooy seedi diine du seedi diine du seedi aada danaa wax ne seedi diine mooy menn njàpp nga julli ci ñaari farata loolu mësu ko def ci dund waxtu wu ne mës a teqale kooku njàpp te julli bu nit du ko jàppal bokk na ci di gën a yéemul Sëñ Tuubaa mooy jëmm joo xam ni mësula am néegu tëdd mosula nelaw guddi bokk na ci li gën a yéemu ci moom it mooy koor mën nañ ne da ko dëkke woon waaye ni mu daa wooree mooy yéemu mooy sëñ bi su wax ne kaana yàq bir layaali wal ayyaam mooy dadaa dajale fan yu bare bare bare yoo xam ne dara dugg ci gémmiñam mooy lekk daanaka foofu ko a boole ci mbiram muy jëmm jooju yi nga xam ne noonu la ko yàlla bindee ci farlu ak pëstéef nga xam ne dafa gane rek feeñ yàlla moo ñaale ko pëstéef boobu xam ngeen ne ci njëlbeenam ay kilifa yu baax daje nañ bëgg ko boole buuru buuru adduna muy lu ñëpp xam xisa ñépp ñëpp teewlu sëñ mët lamin tudd ko ci irwaawu na di waaye la ma jiiteel mooy dam leen tontu mooy qaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaisa tuxni kulla maaxini fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi maanaam yàlla la mas a jàpp yàlla la mas a doyloo yàlla rek moo ko doyalee ba mujj ñu jàppoon ne sax dafa ënt xelam ngir lim dëddu adduna dëddu waa adduna jëm dëgmal yàlla qaalu safihun li xubbi xaaliqi maliki يالا دافن كو توفيق يتام خم نين ني بني وقت تربية المنهج التربوي لشيخ الخديم تربية روحية برم خم خمي تصوف في روتنا دني وقت كي كوي دف فاو مو دجل نيار موي بن دي ام ريام خم خمو الشريعة اك خم خمو li ñuy tuddee xaqiqa dañ leer léegi lan lañ jublu ci xam-xamu xaqiqa mooy xam-xamu gaa baax ñi nga xam ne mooy lay jàngal nan ngay rataxale sa diggante sa borom dañ ci ñëw léegi waaye ñaari xeeti xam-xam yooyu yëpp ci gàttal rek mën nañu wax ne Sëriñ Tuubaa da cee géej woon bu dee xam-xamu sariya yii nii ci jamonoom xamuñu woon ku mel ni moom ci ci xam-xam ndax li ñuy jàng lépp jàng na ko ba jàng xeet xam-xam yoo xam ne daawuñu ko jàng fii ci réew mi dina wax lu bari de Sëriñ boroom borom xam-xam yu mu tasee jamono ñoo ko tazkiya ci wàllu xam-xam ñoo ñoo wax xam-xamam bu leen yéem kenn ku ne fànn gi nga xam boo tasee moom dangay mujj mu yéem la ci fànn boobu udabaaw yi dina ci misaal li kenn ci ñoom wax ne Ahmada Bamba يا أخ التغرب أفيحل لك ظلم العرب بأخذ نحوهم وأخذ الأدب وأخذ جودهم بغير ولد mooy Cheikh Bamba lan moo tax ngay tooñ arab yi xam-xam yi nga xam ne ay xam-xami arab la ñu xam ko nga ñëw gën leen koo xam loolu ak tooñ la kon kooku firndeel na te ab adib moo ko wax bu mag bu ñu xam noonu la meloon ci xeeti xam-xam yi jël si bu dee ci wàllu fiq masalan wax na ne xeeti ngir yëpp yàlla doon doon na ko mooy jox na ko mu xam ko warastani fiqha al imami maliki alayhi ridwanu ilahi maliki qad qulta li minka mun al latifa warastani fiqha abi xanifa warastani fiqha al imam الشافعي منك وجدت لي بالمنافع يا خير قائد xamidin xomida warasani fiqhal imaami ahmada mooy mooy xeeti ngir yi am ci sunna yépp ñeenti ngir yooyu seeni fiq du ceegéene yàlla da koo may rek ci xar baax ni waaye dañ dafa amoon seeni téere ñoom ñëpp kenn ku ne gis na cheikh abdullah al alawi boroom al minaxul miskiya fi siiral mbakkiya sëñ bi tukki ba mu ko yónni woon ca Égypte mu wutali ko mbooleem xeeti téere yi nekk ci xeeti ngir yooyu ma tudd yëpp non la xamé won xéetu ngir yépp xéetu xam-xam yépp it bu dee ci walu yàlla dañu tuddee xaqiqa loolu moom mooy géej gi ndax pëstéefam dina wax ne suñ tubaab pëstéefam moom la mbindeef dul amati lépp lu mu am ci yàlla dëgg la tawfiq suñu borom ak inaay suñu borom moo ko topp waaye pëstéefam dafa kawe kawe goo xam ne kenn mësu ko ca kenn mësu ko dab ci pëstéefam ak yitte ju dafa gane àdduna fekk ay waajuram di ay qaadir mu jëloon am wirdul qaadir yi wirdul qaadir mën naa ne moom la jëfandikoo ba ni mu sañce nii Tuubaa li ma jàpp mooy qaadir la woon ba ni mu sose yoonu murid qaadir la woon teewul nag jël na yeneen wird yi lu mel ne wirdu saadali sëñ Basiiru wax na ne jëfandikoo na ko juróom-ñetti at wirdu tijaan jëfandikoo na ko juróom-ñetti aduna nee itam waaye yooyu da ko jëloon rek ngir barkeelu ci jëfandikoo ko loolu xam ngeen ne lu borom xam-xami tasawuf yi di def la lu ñuy saxal la itam xeeti wirdu yooyu itam mu jëfandikoo ko ba luñ cay am mu am ko ci xam ngeen ni jël wirdu yu xaadir rek yitte jëm ci def ci jël ko ci ngay yëg ak pas-pasam ak yitteem ju kawe mooy jël na ko fii ci réew mi ci ñi ko daa joxe fii loolu dañu ko mu dem ca Az Camara ki nga xaas Camara ca Ndar loolu dañu ko mu dem fa Murtani ca Babour Cheikh Sidiya jëlati ko fa moom ngir am sanat bu wër ginnaaw bi itam xam ngeen ne bi ñëwee ba Touba ci la wax ne ci la ko Cheikh Abdul Qadir Jeylaani feeñ joxal ko bokk mbir mi taxul loolu doy ko ginnaaw bi la jaayanteeg Moustapha sallallahu alayhi wa ba bi mu demee ci géej gi nee na Seydina Jibril ci boppam moo ñëw nangu ci moom xeetu wirde yi mu yoroon yëpp suñu borom jox ndigal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw joxalaat ko boppam ñetti wirdu yooyu wirdu Qaadir ak wirdu Tijaan ak wirdu Saadili mu di ko jëfandikoo ba bi mu ñëwee ci réew mi xam nga moom la daa joxe mag ñi ci ëpp njëlbeen moom leen daa jox ndéw bu Mauritanie nag la ko yàlla jox wirdu boppam woo xam ne mboolem la nekk tey ci yëpp mi ngi ci ni ko Cheikh Mouhamadou Bassir waxe وحن فجمع الكل وزاد وارتقى فإن أخذت ورده أخذت ورد الجميع لا تخاف كبتا موي بو جيلي ورد جيل نغي تي رس ييب ام ورد يتام خمغا ني بولم ورد يتي رس ييب لا والو لير يالا والو دوخ جيم تي يالا اك تصوف خمغين li ñu al ilmu laduni mooy xam-xam bi yàlla lay baaxee ñi ragal yàlla di leen ci xam-xam fatx boobu al a'zam loolu lépp yàlla defal na ko ko ba defal ko yu kawe sunu dégg moom Sëñ Tuubaa wax na ne laqanani lmuuxi li anbiyaihi bima bihi aqulu fi diyaihi maanaam yàlla mi waxyu yonente yi moo ma sa xam-xam ilaya qaala allahu ilma al awliya wal anbiya ورسله كالأنبياء ورسله في نيلها دلوقتي وختم نزع من يفعل ما يشاء العلوم ويمنها لي بكونه العليم يلا مي ديف لوكو صوب nga xamne dara teunku ko sharia lu la teunk wa yalla dara teunku ko lu ko neex def yalla mom nga xam nak lu ko neex def mo jël xam xam yépp jox ma jël seeni barke itam jox ma kon bu dee ci wàllu ñaari xeet xam-xam yépp noonu la ko yàlla wërsëgale mu dajale xeeti xam-xam yépp yu zaahir ak yu baatin yàlla itam waajal ko ngir mu yeesal diine jini ndax da ko daa ñaan ginnaaw bi ñu gis muy wax ne fi mu ne nii maa ngi ci am naa ndigalul yeesal diine وبيجدد السبيل يعني كما البدع إذا أولا للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء وإني أحمد loolu ak ñaan la ak yéene ji mu amoon ci yeesal diine waaye gis nañ ko muy wax ne ujaddidu ujaddidu shariata almutahara inshaa walxaqiqata almunawara ujaddidu tawxida walfurua maa tasawufin xawa burua leer na itam ne di tegee lislaam moom màggat waaye xol yi koy dund ñoo ci la màggat ak ni ko nit ñi jëfandikoo moo tax dafa wax ne diinun siwa islaami yi laa yuhmadu inda ilaahi islaami nu jaddidu mooy li màggat ak li yàq ci lislaam lañ koy yeesal loolu kon mooy gàttalu Cheikh Ahmadou Bamba bi ko yàlla santee nag mu war a yeesal diine xam ngeen ne ci la taxaw nag di yeesal diine xam ngeen ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni da ko jox ñetti xeeti mbir yoo xam ne dafa wax ne moom la ko yàlla def la mooy mission ci kaw suuf te loolu mës na ko mës na ko déggee ci ñaari aaya li mu wax ne kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina loolu moo ci jiitu wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba walxikma أفهم وحن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة مو يونت بيال دكو سنت مي نتلي وخ يال ديني أدي وخ كيمان يال ديكي أدنى ديكو فعلا دي نيت ني دولي كونغو لجا توب مو دي تزكية ني كو توب أدلن جانغل ديني muy xam-xamu sharia ak xam-xamu xaqiqa alkitab wal xikma ñett yooyu nag képp ku yàlla tawféexal nga war a yeesal dine faw ci ñett yooyu rek ngay liggéey ñett yooyu mooy doon sa mission mooy di waar nit ñi di nàmm seeni ngëm ak seeni pas-pas ak di leen tëskiya mooy di leen defal li ñuy wax ak tarbiya ruuxiya ñetteel ba nag mooy di jàngale xam-xami diine yii nii muy xam-xami sharia yëpp rek dañ cee gën a mel loolu nag la Sëñ nekkoon ci kaw suuf bu ko kon liñ ci tànn bu ngeen seetloo ko de mooy xaajub ñaareel bi mooy tazkiya bi wala tazkiya manhajam anam gi ko Sëñ doon defee loolu lañu war a waxtaane kon tazkiya nag dafa laaj ab sëriñ waaye li may jëkk a wax mooy lépp lu ñuy def nitu yàlla yii nii Sëñ Tuubaa ak moo leen gaa ñu baax ni lépp lu ñu def bul sikk ne ci alxuraan lañ ko ballandoo ak sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën ngaa xam fa tegu mën nga koo réere itam loolu moo ci am bu dee ab sëriñ dinaa wax lu bari ne mën si na koo déggee borom xam-xam bi dañ koy misaal ci di dox ci aay yu bare bari ci alxuraan suñu borom wax na ne ولكل قوم هادي وين يبني يالا وتر لين كل دي جبر دي دين جندي يالا سن برام الله نانا ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا كو يالا توفيق لك دين عمنا نار جندي كو دلو بولك ولي مرشد موي ولي ولي ولي ولي جبنتي إرشاد بولي دفع إرشاد ñu gisit si na Muusa ba ko yàlla yabalee ci jaamam boobee ba mu demee da ko wax ne ko hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rushdan mooy irshaad boobu moom lay wut si teew sëriñ ba itam lam ko wax mooy ne ko inna lan tastatia maay sabran mooy yow mënunoo ànd wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi xubran mooy limay def doo ko te man nanguwuma ko laaj te bëgguma koy lëñbët ak ak ak wax ci li may def dangay ngay rek ndax la koy firndeel mooy lam ko wax ne ko fa in ittabaatani fala tasalani an cheyin xatta uxdita laka minhu dikra boo ma toppee dégg nga bul wax bul laaj dangay ngay dégloo rek ba keroog ma lay leeral li may def lolu ak yenen ay yu bare bare ci la borom xam-xam yi sukkandiku ci ne benen serigne bi ñuy waxtaane mooy sëriñu tërbiya lu mënta ñak ci nit nit ki la ndax serigne taalim moy ki jangale koku da lay jox rek xam-xam su la nexé jëfé su la nexé do jëfé serigne terbiya nak dang koy jox ci sa bop mu sañ jëfëndiku ci yow sañ la digal sañ xel mo jaayante gi ñuy wax lolu boo ko ba nopi nak mom mu jaar ak ci mu jaar ak yow ci manhaj ba mi jaar anam ga mi jaar ci terbiya la ak yar sa roh xam ngeen ne nit ba tey ba dama dugg maa ngi guddal waaye nit ñaar ko seq mooy yaram wi nga gis ni ak ruux gi nekk ci biir biir yaram bi ak donte foofu ab bari nañ wute ci borom xam bi ñi naa nekk na ci biir nekkul ci biir moom ruux gi waaye lu mën a xew dama koy wax noonu ngir moo gën a neex a dégg mooy ruux gi mooy an nafxa ruuxiya nafxa ilahiya bi nga xam ne moo nekk ci biir jëmmi jëmmi doomu aadama ruux googu nag ak yaram yi bokkuñu lu ñuy yittewoo yaram yi dafa am lu ko neex am lu mu lekk yeeg naan yeeg mbiri àdduna yi nii ak lu yaram wi itam xam ngeen ne day bu feebaree da nga ko yóbbu hôpital dafa am docteur boppam boo xam ni yaram wii la xam moom boo ñëwee mu seet la dindal la da nga am ay garab yoo xam ne boo ko jëfandikoo dam la waxee da ngay ruux gi itam noonu la demee moom dafa am lu mu bëgg am loo xam ni moo koy dundal am loo xam ne ca lay dund ami docteur yi boppam itam nit nga xam ne sa yaram wii nii léeg mu feebar ba lim gën a bëgg lay gën a bañ léeg nit ki wéradi xéewal yi yi gën neex ci moom lu ne ceeb ak yooyu muy gën a naqari ci bakkanam xare bu ko bu ko xeeñee rek muy waaje wàcc fekk ceeb bi ma nga fa mu nekkoon yow yaa wéradi waaye ceeb bi moom dara si ko ko ci ruux itam dañuy wax ne li mu gën a bëgg mooy yàlla ak lu jege yàlla bis bu ko bañee rek dafa feebar bu feebaree nag am na docteur boppam yoo xam ni ñooy docteur yi ruux yi ñoom seen yitte ak seen xam-xam mi ngi jëm ci nan ngay def ba sa ruh bi ngir pelek ba du am sago ci yalla lolé nag sëñ Tuubaa da ko da misal ci lolou mo jur tarbiya sëñ Tuubaa da ko da misal ci lu gatt ci waxi wolof mi ngi ci majmu bu mag dañ ko eh, bind ci arab waye ci sànn wolof la woon ci majmu bu mag bi ñu mo ci jamono sëñ Saliou gàttal gi mo sëñ Tuubaa da wax ne ku ngeen gis ci jamono ji bu leen sikk ne murid la da cee am ñu jébbalu si am ñoo xam ne jotuñoo jébbaloo jébbaloo guñ ne murid nag buy doog a jébbalu dafa mel ne xale liir buy bu juddoo ci buy doog a judd liir xale bu ndaw buy doog a judd daal teg ne ndax xam ngeen lenn lu xale bu ndaw buy doog a judd mën a jëfandikoo lu weesu ween weenu ndeyam maanaam soow may balle ca weeni ndeyam ñu ne ko déedéet loolu misaal bi mooy murit bii doog a jébbul itam yoon wa ko sëriñam teg dong moo ko mën a jariñ leen lu mu ca dolli day sonal boppam waaye loolu du ko du ko jural benn njariñ da koy gàllankoor sax wala mu sonal ko wala mu indil koy jafe-jafe sëñ bi tekki ne xam ngeen ne itam liir buy doog a juddu fu mu bu nampul day faatu faw mu namp te soow mi balle ci wenn ndeyam rek la mën a namp te jigéen it du kum gisul faw liir bi tam mu takkoog ndeyam njëlbeen gi loolu mooy bi faw mu ci njëlbeen gi di ko nàmpal ca anam gam koy gam lam koy digal ak yoon wam koy jaarale mu di ca jaar te bañ ca boole leneen loolu lañ ci dégg sëñ bi teg ne teg ca ne liir bu ndaw xale bu doog a judd itam waxtu wu ne xale yi nga xam ne seeni ndey dañoo bari soow dañuy wuute ak ñi nga xam ne seen ndey amuñu soow loolu lu leer la te neex a dégg sëriñ bi nga xam ne day sëriñ bu matub sëriñ di digle di tere di tërbiye di di orienté ki nga xam ne moo topp ci moom kooku day wuute lool ak sëriñ bi nga xam ne matutub sëriñ du la digal du la tere bàyyi leg sa sago ak li ak sa bànneexu bakkan sëñ bu teg ci ne yéen seen ndey moom am soowam mu jeex mukk te mooy ndey mur yëpp di sunu baay di sunu lépp dañ daa teg itam ne képp ku nàmp ci moom di nga am xel te di nga màgg ak jàmm te di nga am kattan moo tax da ci daa teg ne na ngeen sax ci seeni ndey njëlbeen gi mooy booy looga jub saxal fi moom mooy tërbiye googu ñu lay defal mooy formation la boo xam ne mënta ñàkk ci wàllu sa ruux ak sa jëm ak sa jàmm yàlla sëñ bi dañu laa tam itam ne da ngeen sax kon fi seeni ndey ba kër ñu leen di feral waaye kuñ ci feral nag na nga moytoo maq suuf na nga lekk ci ñam yi nga xam ne moom lañ war a lekk te te moytoo maq suuf ndax ku maq suuf da ngay feebar te ku feebar man ngaa dee xam ngeen luy maq suufa mooy adduna ak waa àdduna mooy suuf ñam wi baax mooy moytu àdduna ak dëddu ko ak waa àdduna yëpp àdduna mooy mboolem lu xaraam lu yàlla xaraamal lépp lu dagan yàlla bëgg ko loolu ci àllaxira la dugg dugg loolu mooy gàttal bi net li bu gudd la sëñ bi da ne xam ne ne jigéen joo gisit yitteem mooy doomam jim am kawe mboolem xale yépp ak doom ñëpp sëriñ boo gisit ci misaal rek bu bu ab taalibe moo jiitu ñëpp waaye dañu daa teg itam ne xam nañ ne bëgg adduna dana dugal ci xolub talibé bi loo xam ni coono bu rëy moo ko cay génne kon da ngeen di mel ni xale ndax xale bu gisee ndayam dutu am soxla ci keneen te bu soree ndayam itam yitteem mooy gis loolu mooy gàttalu net li boobu loolu tënk na yitte ak solo si nga xam ne moo nekk ci ak tërbiya nga xam ne mënta ñàkk dëgg la nag duñ ko tënk ci ne faw rek nga dem def tërbiya ca daara ja xëy na man ngaa nekk fa nga nekk sëb sëriñ bu dee rawatina jamono ji ak ni jamono sopp ko jàpp naa ne nit mën a nekk fa mu nekk waaye am solo mooy diiru ba muy ba muy door sëñ bay ca tënku te tënk ci boppam te bañ a juyoo moom loolu yaa gis laa mooy gàttal gi ci ci bëgg a ci jamono jii nag Sëñ Tuubaa nag loolu kon moo indi yoon tërbiya xam ngeen ne bis bi fi sëñ Maamoor ànd sa di jógee at ak nangam ginnaaw ba la xëy bis daara ji nga xam ne moo doon daaree sëñ Maamoor ànd nga xam ne jàngale lañ fa daa def rek mu xëy dugal ca tërbiya ruuxi ni ko sëñ Mouhamad la mu jóg dagana nettale wax ne koo xam ne jàng kese kese rek la bëgg na seeti ku ko jàngale koo xam ne daa bëgg jaar fi nu jaar bëgg am li nu am bëgg a dox ci dox bi ni doxi doxi bi ñu doxe na toog ña ëpp dem ña gën a néew toog loolu yi wax nañ ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko ko wax te loolu bind na lu ko firndeel li wax ni wa min ajaaib ibni abdillahi salla alayhi bi salaamillahi باق أضاء أرضه بالأولياء إلى القيامة وكل ولي سنته وصانها عن بدع تبشيره خليمه بفصدع أمره صلى عليه الله في الآل والسحب ومن والاه بأن يعلم المريدين ومن يقبل منه النصح من أهل الزمن مو yonent عليه الصلاة والسلام مو moo ko digal mu dal di tàmbalee woote di jàngal murid yi ko topp di lébéré itam mboolem ñi nangoo ak lébéré ci jullit ñi anam gi mu doon tërbiyaa nag bu ma koy tënk li ma dégg ci delluwaay yooyu ma wax léegi ci njëlbéenu waxtaan wi mooy sëñ Basiir dafa wax ne ku ñëw la muy jëkkeeg yow awwalu maa yaxuduhum bihi noonu la ko waxee la muy yow mooy taqriiru waajibaati diini wa mandubatihi feneen mu wax ne taallumu faraid al ayaani min tawxidin wa fiqhin wa tasawuf wa kaana jullu ma yataallamuuna bihi min tawaadifihi li kawnihi aclama bima yunaasibu zamanahu wa ma huwa awla bi taqdim mooy ku masaa ñëw fa muy jëkk a jaar ak yow mooy jàng loola say farata ak yi mënta ñàkk ci diine loolu sax nee na da leen koo taalifa doon ay yére seet yi nga xam ne moo gën a yitteel ci diine mu gàttal ko ci ay téere teel def ko ay téere ñu di ko jàng ku njëkk a ñëw ku ku mas ñëw foofu dañ loolu la jëkk yow mooy jàng gis nañ cheikh sëriñ cheikh foras sëriñ cheikh mu sëriñ muntaqa téere bi mu dënd si amul bamba tudde ko boo juumul xayaatul murabbil hakim noonu la ko tudde boo juumul wax na ci ne sëñ Muntaqa wax na ni maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu jébbalusee ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa risaalatu Abi Zaydin la ko njëkk a jox moom la ko njëkk a jàngaloo loolu dégg nga ci lu bari mooy maam Cheikh boobu fekk na mu jàng ba sori risaalatu Abi Zaydin kenn du ko tàmbalee kon noonu itam mu jaaree maam Cheikh noonu la jaaree njëkk ku ñëw. la ñuy jëkk def mooy sóob ci nga jàng sa diine te loolu moo boo doon xool mbirum Sëñ Tuubaa moo ko fees wax na ba tàyyi di ko digal murid yëpp alayka yaa muridu bi taallumi fa innahu mutahhirun am na fu mu bind itam mooy fii dafa wax ne dénk naa la yow murid bi ngay jàng am na feneen foo xam ne ci majmaa bii seen blaat génnewoon dafa wax ne yéen murid yëpp dama koy wax rek ci wolof ma nga ca ci ku ca bëgg dellu mu dafa wax ne yéen murid yëpp maa ngi leen di digal ngeen jàng seen diine fa man qabila fal yuqbil wa man lam yaqbal fala yalumanna illa nafsahu fi l axira képp koo xam yéen murid yëpp li taalamu ayuha almuriduna anni amurukum bi taalum fa mu dawax di tàmbali fa man qabila fal yuqbil mooy yéen murid yëpp maa ngi leen digal ngeen dem jàngi seen diine ku nangu lëbëri gii ma leen lëbëri na ca gaaw daw jëmi koo xam ne nangu woon li li ma digle nag buñ demee yomal xiyaam bu bu bu ku may sa bopp loo gis na nga xam ne yaa ko teg sa bopp wax ju rëy itam ci bi nga xam ne moom lañ aj suñ lépp mu wax ne nangam ji boo ko defut yomal xiyaam bu ñu yedd kenn ku may sa bopp fala talumanna illa fala yalumanna illa nafsahu fil aaxira wax jooju da caa taftal jeneen wax وخنا والذي أمرتكم بتعلمه هو ما يصحح الحق عقائد السنية لما ديغال نين جانكو ايتام موي لي ماي بغا موي توحيد والأعمال السنية ما يصحح العقائد السنية والأعمال السنية موي توحيد أفقرك ak mboolem ak tasawuf mooy liy defar pas-pas yi di defar jëfi te loolu mooy xeeti xam-xami tawxiid fiq tasawuf foofu dajaa teg ne fa man lam yaalam cheyan minha wa lam yasal anha walaw bil ajamiyati wa mada kama shaa fa in laqiya rabbahu xasira indahu al alqiyaama képp koo xam ne jàngoor yi may wax nii laajoo ko itam ci wolof mooy làkk bi nga xam laajoo ko ci ba xam ko di ko jëfe di dox rek nim la neexee boo taseeg sa borom ëllëg di nga perte ولوخ سين كبار تكتي تام ني نانين جانغال سين دوم وعلموا ابناءكم وازواجكم وكل من تعلق بازياركم ما اوجبه الله عليه والا فسوف تسالون يوم القيامه نانين جانغال سين دوم اك سين سخنا اك كو اديو تي يين كوكو جي ديفوت نا نغا خامل يوم القيامه لاي لاكو لاج يي واخ لا يو متا باي خال تي واخ سين Sëñ Tuubaa ginnaaw suñ lépp moom lañ ko aj waxam ak xeeti xuppi yii nii dafa aaje dégg bu daa dana dana wax itam ne bu ngeen dee jàng ne dafa am yéene ju jàng laaj itam bul jàng rek ngir bëgg nit ñi ne am nga xam di puukarewu ci xam-xam déedéet loolu taxul di jàng bu ngeen dee jàng da ngeen te yéene awwaluha al xuruju min dalaali li nga ci jëkk a mooy génn ci réer la cay topp mooy soo jàngee ba xam nga nga jariñ ci mbindeef yàlla yi ndax suñ tubaab dara wax ne fi mu ne summa nasihatu li ahlil baari xayru min al jihaadi fil kufaar laa jëlee nit nit ñi moo gën sax jihaad ci noonu yàlla yi ñetteel ba mooy dundal xam-xam ci yi nga yéene yi nga li nga yéene ci jàng ñeenteel ba mooy li nga jàng jëfe ko boo gisee am na feneen foo xam ni dafa wax ne leneen maa ngi guddal maa ngi guddal mel ne am na feneen foo xam dafa wax ne nañ ko tegalee nii mooy awalu waajibin ala almuridi taxsilu zaadihi min altawxidi muntahijan qabla istigaalihi bilinfiraadi bildikri waxdahu wa biljihaadi منتهجا مذهب أهل السنة مع الجماعة وتلك الجنة إذ ظلمات بدعة اعتقاد تكف أنوار اتباع الحديث mooy bal bala ngaa jublu ci tudd yàlla yu bari ak jàng alxuraan bu bari ak jàng xasida yu bari masalan qabla istigaalihi bil infiraadi bi dikri waxdahu bil jihaadi bala ngaa dugg ci jihaad ak sa bakkan ak di tudd yàlla lu bari li jëkk ci yow taalibe bi mooy nga jàng xam-xamu tawxiid awwalu waajibin alal muriid taxsiinu zaadihi min altawxidi qabla istigaalihi bil infiraadi bi dikri waxda wa bi jihaad wax bu am solo bi noonu mooy boo tuggee ci tudd yàlla yii nii bari yu lay feeñu yooyu nag su nekkutoon nga am xam-xam tawxid bu wér yàlla mën laa nattoo ngay ñàkkee ci sa borom masalan ndax dafa wax ne i zulumaatu bidaati irtiqaadi takuffu anwaar ittibaai lhaadi loolu mooy jëkk kon ci murid mooy jàng xam-xam tawxid وبعده تحصيل ما يصحح به فروض العين بو تي جوغي nga jang xam xamu fiqh do ca tek ne wa ba'dahu yasluku inram al-wusul ala yaday murabbin yaqfu ar-rasul ko kama qala radiyallahu anhu wa ardahu moy bo ci topé nak bo ci bo ci joggé ci ñaar yi wax nak nga doga jébul ci nak wutub sëriñ su fekké bëgg nga ag ci yalla wa yaquluhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil 'ada mooy sëriñ bi na jaar yow ci xam-xam ak jaamu yàlla ak sariya bis bu la digalee lu yàlla aaye nekku fa ñukk fa man ala siwal ilahi dallaka fa firra minhu innahu adallak bu fekkee nag ci li neex yàlla lay jaar yow moom bul ko mooy mukk melal lépp néew fi wetam lu mu la digal def defal lu mu la tere bàyyi kon njëlbeen bi li ñuy jëkk yow moom suñu tubaab mooy wàllu xam-xam mooy jàng loolu sa diine باتي توب سيني بيسي ريفوالي موي فطم النفس عن ملاذ الدنيا والاعراض عن الجاه والمال والانكباد على العمل الصالح واخلاص النيه في كل شيء والتحري لمقاصد الشرع وحكمته في كل امر بوم بو ام صلو موي بو جوغي سي سوب موم سيني بي موي جيفه جان جانغون خوي خوي ادنا يي مو digal nga di ko génne ci sa xol nga génne adduna ci sa xol bànneexi adduna yi yi nga xam ne day dog ab jaam di yàq digganteem ak boromam yooyu yëpp mu dina digal nga di ko génne sa xol rawatina daraja ak alal yooyu moom suñ tubaab daa xam ne ku mas ñëw la def mooy fexe bu mu génn ci sa xol moom bëgg daraja ak bëgg alal ku mas a ñëw la njëkk def ci yow ak woyof xam ngeen ne murit ba léegi si jeexi jooju mi ngi fi waaye ni nu yàlla defaree tawféex waxtu wu ne nu mën a toogandoo fi suuf nga xam ne toog ci kaw ak toog ci suuf sax moo ni dàqa toog ci kaw loolu ci jeex loolee la la jóge te loolu lu la am na genn ci kenn ci góor yàlla yi daa wax ne mbooleem jihaad yi góor yàlla yi def ak not gi ñu not seen bakkan lañ bëgg a am rek mooy toroxlu kooku ak woyof googu ak bañu a gis seen bopp nee na loolu yow foo ko amee yëgal ne wali yi kon sëñ bi foofu la foofu la daa jëm ak ñoom mooy fexe ba jëmbal ci seen xol bëgg yàlla dëddu àdduna ak mboolem luy daraja képp nag ci jëf di jëf lu baax ak di sellal seeni yéene ci lépp li ñuy def jiital ci yéene te lu ñuy defit mu dëppoo ni ko yàlla bëggee ak ni ko sariya digle da leen daa wax ne loolu lépp li ko dajale mooy ragal yàlla baatu ragal yàlla dana wax ne waxlam bi anna al fatha wal anwaara wa zuhda wal irfaana wal asraara bi taqwa wa iktaaril wara fatxu ak xeeti leer yëpp ak secret suñu borom yëpp soo ci bëggee jot amul lu ci gën a gaaw ragal yàlla ak sàmm moo tax sëñ Mouhamadul Amin Diop Dagana wax ne sëñ bi li mu woote weesuwul ixlaas sellal looy def yàlla rek rek tax ngërëmul yàlla dong ñor la loolu sëñ bi wax na ci lu bari wax na ne képp koo xam ne jëf na jenn jëf te ak sellal lalu ko nga xam ne jëf jooju des koo koy xëppaat moo tax ñu bari jàpp ne ñu ngi ci dara te fekk nekkuñ ci dara loolu sëñ bi waxe sëñ bi kon loolu mooy ñaareel bi ci gàttal rek mooy la nga xam da lay suuf ci nga jëfe ko ñetteel bi ci bu ni gàttal mooy li sëñ Mouhamad Ami Diop Dagana wax ne alhamdu ala dikril kasir mooy diirub ñu leen di tërbiyee ci daara ji da leen daa digal waxtu wu ne ñuy tudd yàlla waxtu wu ne rek ñu nekk ci yàlla suñ mën lam ñu wax ne bil haylalati wal qasaidi wa dawaami taharati wal ictizaadi wa xusuusan an innisa mooy waxtu wu ne nga saxoo laab te moytu ab jaxasoo jaxasoo nit ñi rawatina jigéen ñi ak soxna yi góor ñi nekk te góor ñi jigéen ñi nekk te jigéen ñi ñu saxoo nag di tudd yàlla laa ilaha illa allah fu ne ñu di ko fa wax di ko yuuxu ak di jàng xasida yoo xam ni du jeex mukk itam waxtu wu ne rek ñu nekk ci ak kenn ku ne itam lam la sant ci xeet tudd yàlla nga nekk xam ngeen ne Sëñ Tuubaa boo duggee ci biir kër yi fenn fu da nga gis ay xeet tudd yàlla yu bari yoo xam ne Sëñ Tuubaa ko jox mag ñi al wirdul maaxuus daana ko joxe sëñ mën lamin wax na ne ku masaa ñëw ci moom dal daa wax ne su fekkee ne yar nga weneen wërd dalay wax ne soo ko mënee booleeg soo ko mënee booleeg sama wërd wii de loolu nuur ala nuur soo ko mënut nag nga yem ci sama gëdd bii te xam ne dajale na mboolem yi nekk la nekk te ca des teewul nag daana joxe yeneen lu ma ne ci mujj gi sëñ bi sil euh, wax nañ ne daana def ku ñëw ci moom moom sax bind na ko si bi bind na ko mi ngi ci majmaa wax na ne murid yëpp digaloon na leen ci mujj gi ku ne boo jullee ba noppi nga jàng fukki suuratul ixlaas ak ñaar fukk ak ñaar ndax dara wax ne loolu day maye tawxid te jamono ji li gën a yitteel dara ji gën a kawe mooy am tawxid ci xol iskaanu tawxiidi fi lqulub wax na ko bari mu ngi ci biir majmaa daana ak yeneen yeneen yo xam daan ko di la xeeti tudd yàlla yooyu nag sëñ ak seigne mohammed Lamine Dagana wax nañ ne su la dugale ci nga xam sa diine di ko da la cey sopp ci tuddi yalla bu bari touba da na wax rek ne xayru taam lil muridi saaliki dawaamu dikri dil jalaalil malik ab murid ñaawam ñaawam wi gëna neex dafa wara doon saxoo tudd yàlla waxtu bu ne ngay tudd yàlla danaa wax sax ne tudd yàlla mooy dund xol ci la xol di dunde ruux li koy dundal mooy tudd yàlla waxlam bi anna dikra xuutul qalbi wax moo tax mu daa wax ne yaa ayuhal muridu laazim dikra man yadkuru man dakarahu taxwil amal mooy yow murid bi bul dañ mukk ci di tudd yàlla waxtu bu ne nekkal di tudd yàlla rek loolu mënoon ci wax dañ ci gàttal foofu la ca topp mooy al amalul badaniya mooy danay dugal nag ci tool yi dina liggéeyloo su la jaaralee fi mu wax nii ba noppi da ca teg dina liggéeyloo sëñ Bésir dafa wax ne sëñ bi dafa seetlu ne gox bii nii ak ñi ko topp ñu ci bari gox bi ñu dëkk ak tayal dafay bari nit ñi dañoo tayal gaaw a sonn bëggub noflaay moo tax ku masaa ñëw ci moom da lay dugal ci liggéey ak da lay yëngutuloo du nangu nga toog ak loxoy neen musta nangu ku toog te defoo dara biir liggéey bi nag mag ñi foofu loolu moo leen xaw a faat ndax lekk dawuñu ko ci boole suñ tubaab bokk na ci tërbiyaam li ci gën a fës mooy lekk du lu yittewoo dëgg am na ndigal lu xorom loo xam ne foofu nuñ koy tawil xam naa tawil dong des ko mën a def mooy li wax ne wal tajaalul juu'a taxaamakum abad loolu ndigal la mu ne su ko dégg maanaam xiif na nekk sag lekk maanaam seen lekk gépp na nekk xiif mooy bu leen lekk loo xam mu ne su ko dégg am na feneen fu wax ne wa kun la daa axdika quutan misla man yastaru lil maytati maanaam bala ngaa lekk na na médd dagan ci yow loolu ci la mag mag ñëpp nekkoon dinaay nettali loo xam ni ki ma ko nettali ku ma wóolu la ku ñu wax sëñ Aliou Niang fële ci Daaru Muxti la dëkk moom bi mu sëñ Tuubaa ñëwee fii ci njëriñ da ko woolu bu gudd la waaye gàttal gi laay wax rek li ma ci bëgg a indi mooy sëñ bi da ko woolu di fàttali konte ak moom sëñ Tuubaa bu njëkk ba ndax da caa bokkoon nee na fekk moom ba mu ñëw ci sëñ bi mbërum làmb la moo xam ne fàcc tàkke la turoon sëñ bi ne ko noo tudd mu ne ko fàcc tàkke mu ko adduy ñang fàcc tàkke du tur sopp tur ba sëñ bi wax ko ne ko yow de xanaa ci sanc nga bokkoon nee na mu ne ko waaw daal di koy laaj ñuy fàtt bi konte nee wax ko ne ko foofu booba de dañ faa def ñetti fan yoo xam ne lekk ñu naanuñu te ñetteel fan ba nga indil ñu xaal jox na ko mu ne ko booba day sama borom moo ma xamal ne ma gaa yi nga àndal bi ñuy malayka jox leen ñu lekk te naan ma xool gis ne lekk ak naan xaal xaal boole na ko moo tax ma indi leen xaal li ma ci bëgg ni mooy noonu la doon doxee moo tax xaw nañoo faatu ñoom mu di ñëpp ànd ak seen tubaab bokk du a dugg sa yoon nekkul noppi dana wax ne xallilil kalaama في الفضول وقلل الكلام في الفضول ان تقصد الرضوان يا خليل مو بغي ام غرمول يالا ديال نيول سي واخ لي تي دو امول نجار اي لو دانك دو نيو كو شيخ دا دانا واخ واخ مسنا واخ ني وقت نلاو غيناو لا نين كو خم اور نلاو ngay tëdd di nelaw ni di xaari nelaw loolu ginnaaw lañ ko xam nit mës ta ñeme mu woo la nga nekk ci ngëmbeen te waxtu ne laa woon moo tax lekk nelaw ak ak yu yooyu moom daanaka fu dewuñ ci xaw a jaar ñoom mag ñoom te loolu mooy li koy sundal mooy li sëñ bi wax ne al akla qallil mooy sax lekk na néew say nelaw na néew te sab jaxasoo na néew rawatina ñi nga xam ne seen sa jaxasoo ñoom duñ la amal duñ la yokk ci dara bokk na ci lim leen daa digal itam ci biir liggéey bi mooy bu kenn jëfandikoo lenn keneen sëñ basiru waxin ni dafa xaw sax wolof bi mooy li wax say al xayri mooy mbirum keneen yëfi keneen bu ko jëfandikoo waxin ni niñ ko wax ci wolof rek noonu la ko taarim way la bo loolu da sëñ basiru neen da ko daa baamu lu bari mooy yëfi keneen bu leen ko jëfandikoo ku ma sa jébbalu si itam da leen laaj ndax say kilifa ànd nañ ci sa ndey sa baay ndax ñi ngi dund boo ne waaw ñu ne ndax ànd nañ ci buñ ci àndee mu noom doon laa nangul jébbal buñ ci àndu na mun la demal ba am seen ndigal sëñ Basiru nett na ci koo xam ni daa jébbalu si te fekk ay kilifaam am nañ ca ba mu ko yëgee daa ñëw ci daara ji di liggéey ànd ak genn jëwri te yëgaluñ ko sëñ bi nee na ba ko sëñ bi yëgee fan yooyu lam fa liggéey sax dafa waan nañ ko xayma jox koy kilifaam noonu kon la daa doxale ñoom ci wàllu liggéey bi loolu mën nañ ci wax lu bari waaye dañ ci gàttal foofu ba ca topp mooy bu bu bu la masaa def loolu yooyu yëpp nag lam cee teg mooy sëñ Basiru nee na summa ida ataadu l amala jamian suduran wa wurudan bila tamyizi ahadin minhum an ahad qarrabahum li fahmi l musawaat lañ cee teg mooy day tàmbali dugal ci sa bopp ne la yow kat gënoo kenn te kenn it mën laa gën ci lenn lu may gën laa ragal yàlla yëgal ne nit ñëpp ñoo yem la leen di teqale la leen di ràññatle day tax nit a gën nit mooy xam-xam ak diine loolu moool li mu wax ne id akramul ibaadi inda allahi aktharuhum taqwan bila ishtibaahi ak la mu wax ne cay weneen bayt wa waalam bi am tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira diine xam-xam rek ci lañuy rawante xam ngeen ne sëñ Tuubaa dafa am ñu fu fekk ci réew mi da fekk société bi ñu di ko xaaj ñetti catégorie mooy la ñu tudde géer te mooy ñi nga xam ne yenn métier yu ndaw yi duñ ko def loolu mooy gàttal xëy na danañ bay danañ commerce waaye am na métier yu ndaw yoo xam ne duñ am nañu daa tudde ñeeño ñeeño mooy ñi nga xam ne métier yu ndaw yooyu lañuy ñuy def loolu mel ni aw wala tëgg wala ràbb wala di yat wala ñu nettali ñu xam histoire réew mi ak ñit ñi di ko nettali ak di ko wax ak di wax lu baax ci diggante nit ñi ñooñu leen tudde ay ñeeño am nañu tudde itam jaam muy keneen koo xam ne buur yi fi nekkoon ñoo ko fi créé woon mooy dañuy fekk rek ay nit tooñ leen jàpp leen di jëfandikoo def leen ay jàpp loolu ak tooñ moo ko indi loolu Sëñ Tuubaa fekk nag si Tuubaa da ko fi jëlee woon si société murid bi mu taxawal nan ko fi jëlee mooy ñaari anam mooy ci wàllu takkante ay sëy la ko dindee mooy dalaa jël ci ñeeñe yi di jox ci gér yi di jël ci gér yi jox ci ñeeñe yi di jël jox ci gér yi noonu la ko jaxasee ba mujj xamatoo kuy ñeeñe wala kuy gér la mooy dalaa def métier yi nga xam ne moom la ñeeño yi def mu di ko defloo géer yi géer yi itam métier yi nga xam ne moom lañ baaxoo def ak lañ leen xame woon mu di ko defloo ñeeño yi bu mujj kenn xamatu kenn ku ne lan mooy métier mag lan mooy delluwaay loolu mën nañu wax ne suñu tubaab da ko faroon ci ñam yi lifoon lañ xamoon rek mooy ab murit ak sëñ bii dib sëriñ ñoom noo bokkub sëriñ lan la gën a kawee itam mooy ak mbaaxam ak lam la jiitoo ci sëñ dafa génne woon ci ñoom it par parloo ci wàllu tariixa wala ci ngir ngir sax bëriwu fi ndax yëggutuñu bi ci réew mi booba ay ngir par parloo ci ngir waaye tariixa moom amoon na fi waaye suñ tubaab dindi woon ci xel yi téere bi nga xam ne ñoo njëkk ànd moom da leen daa wax ne id kulluhum qataan ala sawaabi ñëpp ci njub lañ ne daal lay wax itam فكلهم يدعو المريدين إلى طاعة رب العرش حيثما جرى بالاستقامة فلا تسخر أحد منهم ولا تنكر عليهم احد بول ويد كين بول ديغا كين سي نيوم لا تي توك سي فيم دا جار اك نيوم سي نين لن دا تربيا موي اي تيغي خم نيني تيغي دا نا واخ لو بارني موي روحو ال تيلي سيغ توبا بوكو نتي ليكو غنا ييتيل موي تيغي يوي دا واخ ني اذ كل من بغيره رام اتباع فانه يحرم فوزا وانتفاعا teggin mooy li nga xam ne mënta ñàkk loo mën a def ci lu baax boo ko boolewut ak ay teggin rek loolee du doo ci njariñ du la amal njariñ itam yàlla du ko noonu moo tax murid yi bokk na ci li leen gënoon ràññee mooy teggin yooyu suñu duwaa da leen daa wax ne teggin moo lay may yàlla moo lay may ngërëmul yàlla wax na ne وصح أن الأولياء الواصلين ما وصلوا إلى إله العالمين بكثرة الأعمال كالصلاة وحج بيت الله والزكاة بل وصلوا إليه بالرعاية لجملة الآداب بالعناية سام بني سام تجل نيوم غاي باخي تي اغي تي يالا واي جولي يك وور ييني ديغل يالا يوري يالا ديغل nga war ko def la wori tay du dara yalla man la ja tawfiqam nak may la aljana ëlëk lolu limi sëñ bi wax na ci lu mel non moy dafa wax ne ndigal yii nii àjjana la lay may waaye teggin mo lay may ngeureumul yalla ak sa diggante ak yàlla ratax nga bok ci nit yalla yi teggin mo taxoon mu da mo tax mu doon lo xam dafa sax fi ne señ tuba wax na ne mouride ci bop ñoko laaj yeen teggin lañ wara jëfëndiko ci seen diggante ak seen diggante sëriñ ak seen diggante ak seen borom mu bind leen ci téré muy Nahju qada'i Haaj dinaay nettali lu xawa a xorom mel mbokk mako netti loo xam ni mbokk mu baax la waaye nañ nett li mënu maa doog ci ak wér wéram ndax ñeg ko nett moom mun mun ca doog bi dañ ciy jàng rek ay teggin moo tax ma ci ma ci mooy dafa wax ne li may waaji nett li lu am solo mooy waaji day nett benn xissa ak xew bu am ci marché bi mu di ko nett li sëñ bi te nett li na ko ba àggal te dara ci tooñ nekku ci nee na sëñ bi dafa laaj dafa dégg ab yëngu mu sëñ tubaab laaj li yëngu lu mu doon a nee na am mag mu ne ko su ma ci amee ndigal de dinaa nekk di yëngu mu ne ko am nga ci ndigal nee na waa ji ne ko sëñ ba ne ko wala murit ba ne ko jaamub yàlla la woon bu xeeb wërsëgam ba tax ko àgg ci wërsëgu jàmbur di ca sàkku ndolleen te amul ca ndigal boroom wërsëgoo fekk ko fa mu mel ne dañoo ànd jiit li di yokk i jéego tuut tànk yowoon ca penc ba di leen yokk di jéggi mu mel ne ke jiitu woon lañu dab ba di ko tegu ay bant boo seetloo xisa bi moom yow kenn ku ne xam ne li xew jaamam yàlla bu xeeb wërsëgam ba tax ko àgg ci wërsëgu jàmm di ci sàkku ndolleen te amu ca ndigal warum wërsëgu fekk ko ba ñu ànd di yokk seen i jégal tuut tànk yowoon ci penc ba di leen yokk di jéggi gis nga tuut tànk yi sax waxut ne xale xale boo xam ne mel ne yàgg mag tuut tànk ma tànk ma tuuti rek gis gisal tekki ne kee itam waxu dara ci tooñ fi ne nekkul ci wax ji murid yi noonu lañ doon wax seeni wax teggin day feeñ ci seeni wax ak seeni jëf ak seen jëflante ak seen lépp gis nga borom kër gii nii murid yëpp maa seen di ko wax mag yi mag mag yi mag baat bu kawe gi noonu ñi ma wuñoo wax ne magi seen tubaab ak <laughs> déglu ci wax ji ñuy wax magi mag sëñ Tuubaa mag la Maam Mor Jaara mag la te kenn du wax ne kii mag magi mag rek la ñu wax borom saam loolu mën nañ ci lu bari bari fi ne seen wax ja ja gën a ñaaw masal bi ñu daa mag ñi bi ñu daa wax lu kii dañ la wax ne damay dagg sa lu bon lu bon ci yow laay dagg xam nga loolu mooy saaga bi gën a kawe damay diggal seeni wax seeni wax te loolu wax ju rafet la loolu moo doon ay tegin ci ñoom day feeñ ci seeni wax am na ku may nettali dama ci Cheikh Saalihu Mbàkke julli gum doon julli nee na bi mu jullee def ko ñaari rakka julli tisbaar sëlmal ginnaaw ba mu laaj mag ñi waaw lu ndex xanaa julli gi ndax mat naa matut nee na mel ni mag ne ko sa law Mbàkke mat na sëkk de julli nga ñaari mag ñaar raaka yu mat sëkk sëkk moom nga xam ne moom leeral na sëñ bi ne ko ñaar raaka nga jël sëñ bi xam ne ñaar raaka kenn du ko gis nga ci teggin la ko def loolu lenn la ci li nga xam ne dañ ko doon yare mur yi sëñ bi di leen ci muy teggin yooyu kooku ci ci mën xëj bi la bu fekkee ñu ngi may topp da عناصر يما يندي جاب نم من هذه سنبتير الله الله تهاو لول لكي تبنا موي سنبتير الله تهاو نه تبير أنا مجيب له دنيا ره دلنا ده لين يلقي إليهم في فترات الأعمال من لطائف الحكم ما يبصرهم به عيوب النفس ويفهمهم حقائق الدين ويرقيهم للتحلي بحلي الكمال لتهذيب الأخلاق وتطهير القلوب وتنوير القلوب وتنوير العقول في جمع الهمة على الله بالتوبة النصوح والإقبال إليه بالكلية والزهد في الدنيا وزخارفها والحب في الله والبغض فيه وسجن القلب في التفكر في خلق الله واللسان بذكر الله والجوارح بتاعة الله لي رك دوينا mooy sëñ Tuubaa léeg-léeg ci biir liggéey bi dadaa toogat mag ñi itam jataay yooyu lam ca daa def mooy seen sikk yi nekk ci ñoom na leen di xamal di leen xamal nañ koy seppee ci seeni biir xam ngeen ne dafa am lu ñu tax taxliya ak taxliya jataay yi nekk ci leen ko daa defee li suñ borom tuddee wa daru zahiral ismi wa baatinahu mooy zahirul ismi ak baatinul ismi daaril ismi mooy mooy yàlla yi fees baatinul ismi nag mooy yi boof ci xol kañaan rëy naqari dara di nga yëg sa bopp bëgg àdduna ñàkk kerse gaaw a mer ak ngistal naw sa jëf xeet nit ñi ak yu ne dafa xeeta jikko yooyu Sëñ Tuubaa da ko beral ak buntu ca Masaalikul Jinaan bu ci ne mu wax garab yi koy saafara ay jàngoro la yoo xam ne des ko war a dindi ci ci xol bi yooyu nag ci jataay yii nag mu daa def ak ñoom ci da ko daa génne ci ñoom di leeral seeni xol ak seeni xel fexe leen dañ daa leen digal itam seen yitte jëpp ak seen xalaat yëpp ñu di ko nekk def ci yàlla dëgmal yàlla dëddu adduna di bëggante koy bëgg itam nga bëgg ko ngir yàlla looy defit nga def ko ngir yàlla sa xalaat yépp nekk ci kiimaani suñu borom yi saw làmmiñ waxtu ne muy tudd yàlla say cërit waxtu ne muy jëf jëfi topp yàlla loolu ma indi woon naa ci ay xeeti waxam yoo xam ni daan leen ko dénk waaye waxtu wi du du mat bokk na ci li leen daa wax mooy gaañu baax ni seeni usool seeni cosaan day juróom-ñaar la ba ci njëkk mooy ngoy ci téereb yàlla bi ba ca topp mooy roy rasuulu day sodal ba ca topp mooy di lekk lu lew la ca topp mooy moytu mooy yàlla ba ca topp mooy bañ a lor kenn ba ca topp mooy xàq yi dox sa digganteeg nit ñi ak sa digganteeg sa borom yépp nga fexe ba matale ko ba ca topp mooy saxoo tuub gis ngeen ci wérdam bi dafa bokk sart yi sax waxtu ne ngay tuub te kabaayir yi moom nga nga nga bañ ko jege bokk na ci li ñu leen daa waxee mooy tawxid dëgg-dëgg mooy mboolem sikk yi nga dàq ko ci sa xol nga far ko effacé ko ci sa xol ndax yàlla amuti sikk sikk yëpp mi ngi sa xol bu dañee rek ci sa xol nga gis leeru ngëm yàlla dëgg-dëgg dugg sa xol wax ju rëy mi noonu ju am solo bokk na ci li ñu leen daa wax itam mooy yàlla lu sell la yàlla lu sell la ku sell la itam la nekk fa moom it lépp lu sell la so bëggee dem fa moom da ngay dindi xeetu sobe yi la taq ak tilim tilim yi la taq ne ndax xam ngeen lan mooy xeetu sobe yi leen taq yéen ak tilim tilim yi ne sobe yooyu weesuwul li xaraam ak li sib loolu mooy sobe si fexeel ba tàggali ko moom tilim tilim yi mooy ay caaxaan ak wax joo xam ni waxi larax la mooy jataay yi nga xam ne doo fa jariñu ci aduna dafa jariñu ci alakhirah yoy bo tekkali ko mom rek dal di yek leeru sun borom dugg sa dugg sa xol ak leeruk gëm yàlla deug dëgg dugg sa xol da waxit ne xam leen ne seen xol yii nii am na ñetti yëf xam leen ko ci baye xal moy soy xalaat ci lo xam ne amul la ñeen lolu ak fat lay def ci sa xol ni sa bëb bi di fatto te wenn fepp suuf rek man la tay gis noonu la xol di fattoo lii jur nag fattu xol mooy xalaat ci loo xam ne am lu la jëriñ lii jur wànnent ci xol mooy xalaat ci luñ sib mooy xalaat ci loo xam ne dafa xaraam loolu bokk na ci lim leen daa wax mu bare bare bare bokk na ci lim leen daa wax mooy ku bëgg mucc muccub adduna ak jàmmi adduna ak àllaaxira na sax ci yéene mooy di di yéenew yiw waxtu ne di waxu yiw di jëf aw yiw te taqu aku yiw mooy li wax ne in wi wa qul wafaal wa laazim taslami boo ko defee di nga mucc waxoon na sëñ Mbàkke bu so ne ko juróom-ñeent ngi yoo xam ne ku ci sax di nga am muccub àdduna ak muccub àllaaxira Moy, na ngay ragal yalla ragal ku ragal yalla ragal ku ragalul yalla bayi lu bon bàyyi ku bon bàyyi fu bon lo xamul bul ko wax loo mënul bul ko def loo moomul nga manuti ne ko juróom-ñett ngi juróom ñent ngi yo xamni ne ku ci sax di nga mucc ci aduna da nga mucc ci alakhirah nek non len da wax itam ne yep itam xam len ne doomu aadama bu nekkee nii nii maqaama yëpp ñi ngi ko wër sikkam ko wër yi wër leen sikk loo joo daaneel rek maqaama dal di dal di agsi sikk yi daa mel ni ab miir bu la wër wet ma féeteeg moom dal di si mooy say sikk ngay fexe ba tàqu moom tàggalikoo moom yeneen ak yeneen mooy daan leen dénk seeni cër ñu di ko sàmm loolu wax na ci lu bëree bëri daan leen dénk itam ne len dafa am ñent yu doge te lolu moy sa bakkan bi ni ak aduna ak saytaane ak banex yoy lu ci ne waxna na li nga xamne mom nga war a ak mom ak fon ko wara a ak na ngay def ba mucc ci mom ku ci massa nak dem ba mat mu yewwi la nga dem ben lu digal da nga sanc fi beurep léeg-léeg ngay ñëw di siyaar si loolee xam ngeen ne ñu bare bari jaar nañ ci loxoom mu yewwi leen boroom bërëb bii nga xam ne muy sëriñ Mouhamadou Diarra boroom saam mes na ko ci tudd donte nag li boroom Darou Mouhty wax ne moom seen kilifa kilifa lañ ko jàpp woon li ñu kilifa lañ ko jàpp woon ñii waxtaane dund wax ji fa muy dellu si na ko ak njëbbalam mu jëbbalu fi moom loolu du yéegu xamees na topp ku ne ba mu tes topp sarak maa ngi jégalu ci baat bi waaye loolu lu yéemu la waaye Sëñ Tuubaa nangu lan na ko waaye nag joxoon na ko cëru bi tam kilifteef bi kon boroom dëkk bii wala boroom bërëb bii nii mën nañ ne ci ñooñee la bokkoon mën nañ caa limit mbooloo mu kenn xamu nuñ toll mën nañ caa tudd lépp Cheikh Ibrahima Fade mi waxoon sëñ Mbàkke Buso mi nga xam ne moo doon muftiw yoon ni ko cheikh mouhamadou diouf daga la tudde sëñ ma sàmb bus sëñ bakke mané ci alim lim cheikh abdourahman lo mi nga xamné alquran la dal nafila bis bu ne guddi bu ne borom dekk bi borom borom bi témir rakka borom doon la sëñ bassir wax cheikh adama gay cheikh ibrahima sarr sëñ ma diop cheikh mouhamad dumbe asan njaay mi nga xamné masna mas bind borom dëkk bii nii boole ca benn ba jaaw ci ay kawaram fekk boobu borom saam da ko wax ne ko dama laa gëj a gis mu bind ko lettre boole ca benn bi jaaw xamal ko ne ko gan gi moo ko gane si moo tax nga tëj ma gis Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Issa Jenn sëñ Babou Gueye ak sëñ Mor Absa Lo sëñ Mouhamad Lo Dagana sëñ Abou Bakar Jaxate Cheikh Mouhamadul Amin Gueye sëñ Chiré Lo ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen سيدي وا تربيه لين سيدي مكي بوسا واخني هو الغوث والمغياس رب قلوبنا وارواحنا واجسامنا فالكل صاف وناعم موي نون نيب ام نان صفاء الروحي امت النعيم نعيم القرب من الله تعالى موي نون نيب ام نان سلت اك بيرك بيتي ام خيولو دي دوند سي جيغيال موي خيول دي گنا مك loolu mënoon nañ ci wax lu bare bare dama joxe misaal rek ne ku mel ne alqaadi ma jaxate kala seere la sum seere ñi toppoon sëñ tuba ak seenu melam def na ci xasidu gu rafet boo xam ne monsieur futa gis gu ni mel sëñ tuba dafa mel da ko abaloon ay dong yu ko doon jàppale ci ay toolam da doon sàkk ndimbal ci ñu ko jàppale ci ay toolam ne dong yi ba ñëwee dafa wax ne mu buuna qad gaddu min aswaatihim gaddan ka absaarihim xatta yudannu maan marda bi ma leen gisee damaa jàpp ne ñii dañoo tawat man maa ngi sàkk ñu mën a liggéey ci tool yi si ñu yónnee ma gaa yoo xam ne dañuy cooy kalan kalan mel na ku tawat xamat ma ar xataa yudannu maan marda araadu atibba aw masakina hammuhum dawu sadaqatin muqridu rabbihim qarda donc yi ma abal boo dee gis dama jàpp dañuy ay fuqaraaw lañ yoo xam ne ku leen sarax lañu lañuy lijjanti waaye ñi ma mënuñu liggéey jàpp na waaye nee na bañ demee ci tool ba falamma adarna baynana alqawla saatan aradtu alayhim xidmatan kaburat arda fahaana alayhim liggéey bi ma leen jox wax leen ko tool yi rëy lool waaye ñoom ñu woyofal ko fahaana alayhim fagaabu وأصوات المعامل لم تغب كبدر يوم حق النبي قد دعا وأم صلاة الأرض أية غيدة كثيرة أسجال مشق أعداء وولوا حفاة ولم يكونوا ليعبأوا بحر وشوك بل بمن حكمه ممضى mooy ñoom suuru ñuy daal dugg faalewuñ tàngoor bi faalewuñ dëgg yi yàlla rek lañ faale walam yalqa minhum waxidun ajnabiyatan tuxaadihi illa wa huwa atraqa aw axda ku ci dox ba gis jigéen day sëgg du ñu xool lu xaram mukk wa ma rafaul aswaata illa bi dikrihim seen kàddu gépp mooy tudd yàlla itam wa ma axaru l awqaata naflan wala farda fu waxtu julli jotee itam ñu def bañ jóge ci tool ba nag mu wax ne watallaahi law anna al murabbiya qaadahum li yanfaw an il ardi al ida zalzalul arda giñ naa ci yàlla day gaa ñi ndekete ay yamba ki leen jiite bu bëggoon a yëngal suuf si tey suuf si yëngu noonu lañ meloon mooy lépp di nekk seen biir ñu ne dégg moom ànd ak yar ak teggin woo xam ni fu ne ñu man faa ne fu ne ñu mën dañ jëflante ak moom Cheikh Xaadima Jaxate Kala moomu seere soo seere su rëy la su am solo ci ñu njëkk topp sëñ Tuubaa ñoo ngi jég lu baax ci guddal gi ni ma ko waxee rek rafetal la ak yaatal waaye borom xam-xam kese ñoo fees bërëb bii maa ngi leen di jéglu loolu mooy gàttalu li ma yaakaar ne mooy ak Cheikhul Xadim wa manhajuhu at-tarbawi maa ngi jéglu bu baax ci guddal gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh